aujulaar na seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides di ñaan suñu boroom yàggal ko suñu kanam bu baax a baax a baax ba naa yi nga xamante ni naal na ko mu jëm ci liggéey sëriñ tubaa suñu boroom defal ko si ay ndam defal ko ci ay xéewal te ñu ànd ko moom di ziara ku nuyu sëñ Modou Mbène Fall xalif général day Baye Fall euh, di ko ñaanal moom it fan wu gudd ak wér-gu-yaram euh, di ziare mbokk taalibe ak njabootu sëriñ gi yëpp bàkk Cheikhul Khadim euh, fii ñu nekk nag mbokk taalibe yi fi nga xamante ne mooy bibliothèque Maktaba Serigne bu Mbacké te nekk fii si Daaru Xudoos si kër Serigne bu Mbacké Euh, ñu taxaw ak docteur Serigne Abdoul Ahad Sané euh, ñëpp xam ko ci loo xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xam euh, rawatina li nga xamante ni dafa jëm ci di saytu ak a topp téere yi nga xamante ni day am ci maktab yu mel nii te féete fii si dëkk bi kon mu mel ne bokk na ci ñi nga xamante ni. xam nañ ko ci ay activités lépp loo xamante ni bibliothèque la féete fii si Touba euh, caytu gi ak topp gi nga xamante ni euh, lu ci bëri sëriñ bi si loxoom la ko la ko teg ba ci maktab bii nga xamante ni mooy bibliothèque sëriñ Soxay bu Mbàkke nekk fi si Daaru Xuddus lépp loo xamante ni œuvre la document la boo xamante mu ngi fi euh, moom ci ci ci njiitam lañ ko doon toppee di ko saytu euh, ba li fi war a nekk nekk fi ndax ku wax bibliothèque wax xam-xam te diversité thématique yi bari nañ te mu mel ne dëkk bi dëkk xam-xam la boo xamante ni lépp loo xamante ni document la wala œuvre la boo xamante ni war na fee dugg nit ñi di ci jàng wares na ko topp wares na ko saytu ba mu dëppoog l'islam dëppoog li nga xamante ni borom dëkk bi bëgg na ko ci dëkk bi jëm ci wàllu xam-xam ñu soog ko fee tàbbal kon loolu mooy li nga xamante ni mooy euh, si tënk présenté ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou Lahad Sané. waaw jërëjëf jërëjëf euh, kàddu yi leer na te it am na solo présentation bi it euh, tënku na waaye it it jotale na li ci am solo rek mooy li nga wax ci sa biir présentation mooy wàllu xam-xam ak wàllu téere ndax ñaar yooyu ñoo mas di ànd ci àdduna xam-xam fu mu amee téere ngi ci wetam yàlla subhanahu wa taala yonent bi bi mu ko yónnee ab téere la ko jox téere booba nag mooy ndeyi téere yi te mooy alquranul karim ba fi yonent bi jógee it saxaaba yi daan ñu bind ndax xam-xam la bu ñu ko bindul fàtte ko daan nañu bind bind di dox di dox ba ñu officialiser ko. Mm-hmm. Euh, ci jamono yu Omar ibn Abdul Aziz. Mm-hmm. bi ñu officialiser bind ay téere xam-xam surtout téere xadis. Mm-hmm. ginnaaw gi mbir mi di dox nit ñi di gën a am aajo. ci xam diine. Euh, ña nga xam ni ñoo ko xamoon. ragal bu ñu fi jógee te la ñu xam dajalewuñu ko. bu boobaa génération yii di ñëw ci seen gannaaw. lu bari ca la ñu xamoon dana leen réer. looloo tax mbind commencé di yaatu. Mm-hmm. Eh, ci njëkk bind sax boo demee ci eh, imam Suyuti mi ngi koy wax. Mm-hmm. Ibnu Shihab az-Zuhri. Mm-hmm. mooy ki njëkk bind. ab téereb hadis. gannaaw Alquran. ginnaaw gi ay taalibeem euh, génération yi taalibeem. ñu bari bind ci sunu imaam di imaam Malik. ci taalibe yu Zuhri la bokk. moom mu bind téere bi naan mu watta Euh, maktaba bii sax euh, téere boobu ak i saraam. Mhm. incha allah danañ ci yegg mu ngi fi. Mhm. ay ay moromam ay naataangoom ay collègue am. Mhm. ku demee ni Hushaym ibnu Bachir. ku demee ni Abdul Malik ibnu Jurayj. Euh, ku demee ni Maamar ibnu Rachid. ku demee ni Ibnu Abi Ziib. ku demee ni Abdullah ibnu Mubarak ñoom ñëpp bindoon ay téere jamono yooyu. téere commencé di yaatu di law di law di law ba yegg ci. Euh, euh, bibliothèque bi bi ñu njëkk a sos. Mhm. nga xam ni bibliothèque bu mag la. te ñu wax ni jamono yooyu àddina bi mooy bibliothèque bi ci gën a rëy. Mhm. Euh, mooy bibliothèque bi ñu tuddee woon Daarul Xikma. Mhm. Daarul Xikma te nekkoon ca Baxdaad. Maamun sosoon ko. Maamunul Abbaasi mu doon bibliothèque boo xam ni ñëw na ci jamono tey sax. bibliothèque bu bari ay téere. Eh, bu toll ni bibliothèque boobu. mbir yi nag di gën a yaatu. buur yi nga xam ni xam-xam da leen ñor ku ci nekk sosaan sosoon nga bibliothèque boroom xam-xam yi nga xam ni kilifa yi nga xam ni xam-xam dañuy yëngu ci xam-xam daanaka seenu euh, tanaafus lu baree bari ci ay téere la woon ndax xam nañ ni téere muy cëslaayuk xam-xam ci ku ko bëgg yaatal waaw kon taarixu lislaam noona la wéyee ci ay téere waaye ñun ci tënk fii nga xam ni fi lañu bokk fii nga xam ni fi lañu taxaw tey di ci keppaaruk eh, sëriñ Chouaïbou ibnu Cheikh al eh, bu ñu bañu ta sori lool dañuy wax rek ni eh, sëriñ bi moom sëriñ Touba ku ko xam-xam digganteem ak téere boo demee ci an nafaxaatul miskiya naar bi ko bind mi ngi nettali ci biir yoon wa ku sëñ bi yónnee pour mu dem fàggu ji ay téere ci réewu arab yi mu fàggu ci ay téere yu bare bari indi ko boo xoolee ci jamono yu mujj yi boroom xam-xam yi ne fii Touba amoon na benn list bu ñu génnee list bu yaatu boo xam ni lañu fekk ci téere yi Serigne Touba amee woon lañu def ci liste ko mu doon téere yu takku lool la nga xam ni moom lañ fi fekk te bari woon na bari waaye boo xam ne lu ci bari. yi taalibe yi barkeeloo nañ ko yi seex yi barkeeloo nañ ko ndax yóbbu nañ comme lu sëñ bi moom rek. gaa yi ni ñu ko daan barkeeloo. Mhm. la ëpp yóbbu nañ ko la ñu fi fekk rek. Mhm. daanaka ay centaine la. Mhm. kon loolu day wane it yitte ji nga xam ni. moom Cheikh Ahmad Bamba da koo joxoon téere. waaye yemul woon ci moom waaye njabootam. njabootam yëpp nag. fii ñu nekk tey di ay euh, Chouaïbou moom it euh, danañ ci ñëw ci kanam. Euh, ku ku yittewoo woon xam-xam la ci anam goo xam ni. mboolem ku mu jaxasool xam nga loolu. boo demee ci téeréem yi nga xam ne bind na ko xuratul ay ni ci misaal da nga ci fekk muy référé woo ci ay téere lu bari donte téere ba sax ci olof la waaye boo demee ci buxyatul muridin wa xunyatul mustarfidin moom it mu doon téere boo xam ni mhm. ci arab la ko bind mhm. mu yaatu lool euh, téere bi sax mu bil munaasaba jàpp naa ni man maa ko njëkk a bind mhm. tàppe ko ci machine waaw maa ko njëkk bind tàppe ko ci machine kenn ci njabootam moo ma ko joxoon pour ma tàppe ko ma tàppe lépp mu doon mu tolloon ci cent quatorze pages ci biir téere boobu day dellu ci ay téere yoo xam ne naan téere sàngam nee na nangam diw nee na nangam te loola ci téere yi la ko jëlee kon loolu it day wane ni. dafa joxoon ay téere yitte. waaye xam na it xam-xam nees ko war a jaare eh, pour man caa yegg fu sore soree sori. te mooy wut ay jumtuwaayam. ay jumtuwaayam nag sëñ bi da koo joxoon yitte. ba loola ñu nar a eh, présenté fii léegi. dana doon firnde ci loolu incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahad mel ne kàddu am na solo. te mu mel ne loolu la ñuy wax dafa mel ne. Euh, partie introductive la boo xamante ni. Mm-hmm. dañ koy laytaalee mm-hmm. waxtaan wi. Mm-hmm. ndaxte ni ñu ko waxee léegi ci introduction bi. ñu ngi ci maktab bi nga xamante ni mooy maktab Serigne bu Mbacké. nekk fii si këram gi ci Darou Khoudoss. Euh, muy bibliothèque bu yaatu boo xamante nii ci wàllu xeetu téere. am na diversité thématique yu am solo yoo xamante ni. téere yoo xam ne daanaka sa xañ na pour euh, am ko si dëkk bi dina xaw a jafe. kon mu mel ni rek pàcc bi ñu jëm. Mhm. day doon pàcc boo xam genre visite guidée lay doon. boo xamante ni mhm. lépp loo xamante ni xetu téere la. Mhm. boo xamante ni mi ngi fi sa barab bi. Euh, ñu mën ko wax. mbokk taalibe bi mën koo man koo man koo xam. boo ko defee képp ko xam ne seetaan nga vidéo bi hmm. bu doon am na téere booy seet te xëy na mu jafewoon la hmm. boo seetee seetaanee lii rek hmm. di nga a xam ndax am na si barab bi nga xam ne mooy sa naa kon visite guidée boobu la ñuy ànd ak yow bu ko defee par rayon loo xamante ni xeetu téere la boo xam ne exposé nañ ko fii ne di nga ko mën a présenté man cee indi ay commentaire ngir mbokk taalibe mën koo xam ne kon mbokk yi ni ngi leen ko waxee léegi ñu ngi ba tey ci maktab Serigne bu Mbacké euh, fii si Darou Khoudoss kon ñu ngi si rayon bi nga xamante ni dañ fee dajale lenn si téere yi nga xamante ni Serigne Souhaïbou ci boppam moo ko fag woon euh, muy téere yoo xamante ni ci wàllu thématique yu lu yaatoo yaatu la xam naa ba tey dañ ci ànd rek ak docteur Serigne Abdou Lahad Sané bu ko defee mu indil ñu ci yan xeetu téere ñoo si ñoo ñoo fi ne ak yan thématique ñoo si ñoo ñoo si ñoo si nekk. waaw kon comme ni ñu ko junjee woon sànq euh, sëriñ Souhaïbou euh, xam-xamam bu yaatu ak yitte ji mu joxoon xam-xam taxoon na lépp loo xam ne jumtuwaay la woon boo xam ne dina mën a yaatal xam-xam dina mën a euh, dëgëral xam-xam daawu ci am xel ñaar ci fàggu jumtuwaay yooyu ak lu mu koy mën a kute nag téere yi nga gis nii lenn la ci ay téereem yi nga xam ni moom la amoon lenn rek la ci du lépp waaye lenn la ci lañ ci jot a fortaatu ci ci ay jeexitalam moom la ñu dajale fii am na ci téere yoo xam ni volume yi manqué na kon day wane ni boo amee téere yoo xam ni fukki volume la ñaar manqué ci wala ñett wala la ci ëpp manqué ci kon loolu day wane ni la dem ci ay téereem moo ëpp li fi nekk nii fuuf waaw waaye du tee li ci nekk ñu am dinañ ci mën a tegtaloo pour xam yan façon yi xam-xam la Serigne Souhaïbou amoon ak yan façon yi euh, téere la Serigne Souhaïbou doon doon doon saytu daan jëfandikoo bu ñu tàmbalee ci euh, li gën a tedd ci xeeti xam-xam muy tafsir dinañ fi fekk ay xeeti tafsir ndax lii tafsiru xaasin la lii benn la lii tafsir xaasiyatu saawi la euh, lii tafsiru fii zilaalil Qur'aan. tafsir xaasin. tafsiru xaasiyatu saawi. tafsir yu mag la. tafsir yu yàgg la. yoo xam ni miin nañ ko fi ci dëkk bi. miin nañ ko ci réew mi. ci ni mag mi daanaka ñëpp dañ ko daan am. waaye bi ci gën a yéeme mooy tafsiru fii zilaalil Qur'aan bii. Euh, nga xam ni. tafsir bi ki ko bind. bi mu faatoog léegi taxu koo yàgg lool ndax 1966 la faatu. 1966. ci la euh, te bu ma juumul. ki ko bind 1914 la judd. la gane àdduna. muy Sayid Qutub. mu doon ku coow bari ci moom lool. ndax euh, frère musulman yi nga xam ne ñoo nekk Égypte. ci seeni njiit la bokk. kon loolu li mu ñuy tegtal mooy sëñ bi ci boppam xam-xam moo ko moo ko yitteel ndax téere bi dëgg la dafa am ci wàll woo xam ne daf ci ràññeeku mooy firi alquran ci anam ngoo xam ne dafay dëppoog jamono ji nit a dégg ci environnement ci la muy dund mu déggee alquran ci ci anam googu moo tax mu de ko fii zilaayil quran moom ci boppam na mu kerloo ci keppaarug alquran noonu la tafsir bi tudd mu doon tafsir bu am solo lool waaw waaye teewut li ñu ci mën a tiir rek. Mhm. mooy sëñ bi esprit bu ubbeeku bi mu ah, amoon. waaw ci jàngal ku ne. Mhm, mhm, xam lu ne la fu ne la fa ne. kon loolu tafsir bii mooy dafa gën a ràññeeku ci li ñu fi fekk. ndax li ñu fekk fii ci yeneen tafsir yi. mooy la fekk ci yeneen maktabaat yi rek ci tafsir yi mag ñi. waaye bii nag moom moo ci am particularité boo xam ni néew na nga fekk ko ci tafsiru mag ñi. kon lool la dafa am lu muy wane ñaareel bii dinañ fi fekk it. Euh, tafsirul jalaalayni mhm. euh, moom tafsir bu siiw la moom la sëñ mët dem mhm. euh, firi woon ci wolof ba am na ci réew mi dem menn mi mu mu mu waaw moom moom mhm. am na ci beneen boo xam ne yitte borom yitte rek moo ko mën mooy al mujamul mufaharas lii mënees na ne benn dictionnaire u alquran la ci misaal baat boo bëgg ci alquran. nga ne kalima bu ci ne. nga bëgg xam fu mu ne. boo ñëwee fii boo gisee kalima bi rek dana la wan kalima boobu baat boobu. vocabulaire ba fan ak fan ak fan la ñëw ci alquran. waaw xam nga te mu doon lu am lu am solo loo xam ni. moom it na nga fekk ko ci téere yu mag yi. kon mel na ne téere bi ñi nga xamante ni dañoo nekk si daara jàng alxuraan. waaw daanaka moom dina leen dimbali mën na leen amal solo. mën na leen amal solo. Mhm. Eh, ci yeneen wàll ba tey dinañ fi fekk lu mel ni téere xadis. nga xam ne alxuraan mooy deuxième source ci bu jullit war a dellu ci euh, xam lislaam xadis nag téere ba ca ëpp solo ya ca solo ñetti téere la muwatta bu imam malik tudd nañ ko fi sànq ak saxiixul buxaari ak saxiixu muslim ñetti yëpp danañ ko fi fekk bu dee muwatta danañ fi fekk ay sharxaam lii sharxub muwatta la euh, juróom-ñetti volume la waaye fi mu toll nii juróom fi ne ñett xamuñu fu mu dugg moom lañ tudd al muntaqa la téere bi tudd mm-hmm. fii charhil muwatta abul walid al baaji moo ko bind mm-hmm. eh, dinañ fi fekkaat beneen charhu muwatta muy tudd charhu zarqaani mm-hmm. alal muwatta kon loolu day wone it yitte gi mu yitte woon téere xadis yi surtout ak seeni charx ndax ñu ngi fi eh, ba ca topp mooy saxiixul buxaari bii saxiixul buxaari la moom tamit mu ngi fi saxiixu muslim tamit mu ngi fi. e te ñaar yooya ñooy téere yi gën a wér. Mhm. gisoo bii tamit Buxaari la. Mhm. Eh, mooy ñaari téere yi gën a wér manees na ni ci téere yi lislaam. ñoo ko Muwatta bu imaam Malik boo xoolee di Mashaariqul Anwaar. ala sihahil athar bii tamit li ñu wax ci bii nga xam ni dictionnaire la. pour leeral Alquran. baat ya ca ne kii tamit dictionnaire la pour leeral xadis yi yonent bi mm-hmm. surtout ci muwatta mm-hmm. ak euh, sahih buxaari ak sahih muslim baat ya ca ne la ko defal qaadi iyaad bind ko mm-hmm. tudde ko mashaariqul anwaar ala sihahil athar kon lii yëpp day te lu xóot la lu sori la lool ci xam-xam waaw boo demee ci it euh, kasful astar an zawaidil bazar lii it benn xam-xam la ci xadis bu tudd ilmu zawaid mooy téere xadis yi gën a am authenticité di juróom-benni téere yooya dafa am yeneen téere yoo xam ne seeni téere lañu am xadis ya ca nekk te ñëwul ci juróom-benn yi am borom xam-xam yu ñëw seppi xadis yooyu dajale ko ci ay kàggu pour buñ ko dollee ci juróom-benn téere yu siiw yi xadis yu yeneen bi yëpp mën a dajaloo ci benn barab ñu def caa bokk Nuuru Diinul Haysami moo ko bind Zawaahirul Bazaar. Mhm. téere la it bu jafe mën nga dem ci boroom xam-xam yu bari lool. Mhm. boo leen ko laajee duñ la mën xamuñu téere bi sax waxuma laa ñu lay mën a génneel jëmmi mhm. téere bi. Euh, bii it mu doon xam-xamu mustalahul hadis. bokk na ci ñaara mu gën a bett keroog bu ma fi ñëwee. ci téere sëñ Suwaybu bii daf caa bokk. waaye bii dinañ ci ñëw moom it daf caa bokk. Euh, ndax lii. mis mustalahul hadis lañ koy wax. bokk na ci matière yi may jàngale ci université yi mu doon xam-xam bu mm-hmm. bu xaw a raar tuuti mm-hmm. Mm-hmm. yenn saay eh, boo demee jàngi ko ñëw dangay ngay jàpp ni yow rek yaa ko xam wala ña ko xam bariwul wala luy doog a dugg ci réew mi la te fekk mag ñi dañ caa jiitu woon bu yàgg ba xamoon ko ndax bii dafa bokk ci juróomi téere yi gën a am solo ci xam-xam boobu tadribu raawi la qawaidu tahdi eh, ak eh, tawjihu nadar tawdihul afkar ak fathul muxiis ak qawaidu tahdis min fununi mustalahil xadis kon am téere téere bii nga fekk ko ci maktabaam loolu dafay wane lu bare bare bare bare waaw kon loolu ci tënk rek euh, <laughs> ci loolu la dellu léegi bu ñu delloo it ci euh, lu mel ni xam-xamu tasawuf dinañ fi fekk lu mel ni Ihya Ulumi Diin defe naa ko xam imaam Xasaali daanaka koo ko xam na ko mm-hmm. waaye nag téere boobu ak na muy rëy am na saraa benn saraa lañ ko xamal mm-hmm. mu doon saraa bu yaatu lool mm-hmm. bu yaatu lool tudd itxaafu saadatil muttaqin mm-hmm. bii bokk na ci téere yu bees yi ñu indi si yoonu njëkk ba def ko ci maktab waaye boobu eh, amaana boo ko indee da ngay jàpp ni mu ngi fii doog a dugg ndeke téere bi amaana jiitu na fi yow jiitu na fi sag judd eh, téere bi mu ngi fële ci yema indi woon la bokk mm-hmm. ci mool bu bees bi waaye nekkee téere bi am na fi bu yàgg yàgg yàgg mm-hmm. te sëñ Chouaib mooy saraabu ihya ulumi diin mm-hmm. xam ni ko bi ne mooy murtada zabidi eh, kon mi ngi noonu kon loolu yi day wone ak yaatalam ci xam-xam bii téere la ruuxul nii ci tafsir la moom it mu doon téere bu ama am solo ci wàllu tafsir ndax tafsir dafa boole tafsir comme ni ñëpp di tafsiré waaye tafsir boo xam ne da koy tënkaat ci tasawuf en même temps waaw mu doon fukki xaaj la ak juróom moom waaye gis nga lu ca bari moom it nekku fi am na yu fi waaye am na yu fi nekkul euh, bu ñu demee ci wàllu lit wàllu wàllu wàllu euh, vocabulaire mm-hmm. nga xam ni dafa bokk ci dictionnaire yi gën a am solo. nga xam ni dafa am dictionnaire yi ko jiitu yëpp. daa ñëw tënk leen. mooy dictionnaire bi gën a am solo ci lugal arabiya. moom la ñuy tuddee al qaamusul muhiit. Euh, moo nekk nii. al qaamusul muhiit. dictionnaire la. waaye dictionnaire boo xam ni. Euh, ki ko bind dafa xaw a mujj ci jamono. Mm-hmm. mboolem la ko jiitu ci ay dictionnaire la jël lépp. tënk ko tënk ko fii. Mm-hmm. wutal ko aw tur woo xam ne day wane ni. peek mm-hmm. na lugal arabiya alqaamuus mooy océan. Mm-hmm. almuhiit mooy océan boo xam ne dafa wërngal këpp àdduna bi. Mm-hmm. océan bu ngel këpp àdduna bi noonu la tuddee. Euh, dictionnaire am bi. pour wane lugal arabiya lépp rek. mu ngi ci biir kon bokk na ci yi nga xam ne sëñ Chouaïb da ko amoon. dund saxaaba yi ridwanullahi alayhim. téere bii. li ñu bind ci dund saxaaba yi bari na. waaye bii daf caa gën a matale gën caa jotale gën caa ëpp solo. moom it fukki xaaj la ak ñaar benn rek moo fi nekk fukk ak benn yëpp dem na <laughs> mu ngi ne alxaafis ibnu xajar moo ko bind tuddaal isaaba fii tamyiisi saxaaba pour ñan ñooy saaba yi cité saxaaba yi dale ko ci abou bakar ba saxaaba ba mujj ñoom lay ñoom lay indi seen bio kon noonu kon sëñ Suwaybu ci wàllu yi dajale woon na ci lu lu lu baree baree bari bu ñu jógee foofu dañuy dem ci téere bii lañuy wax ci téere bii moom la ñuy waxaat ci téere yi ndax kenn leen bind. bii ak yi waaw ki bind kenn la. Mhm. mooy ibnu taymiya mi ñëpp xam. Mhm. Euh, ibnu taymiya nga xam ni coow li li ko wër dafa bari lool. Mhm. Euh, ndax ñi nga xam ne dañuy contre tasawuf ñii contre wàllu aqida la charia ñoom ñëpp daanaka moom la ñuy jël def ko seen sukkandikuwaay donte sax nag. Mhm. ñu ngi koy askanale lu bari loo xam ni mhm. nekkul woon ci loolu. Mhm. bu dee achariya de. moom da ko contrôle lool. waaye bu dee ak tasawuf. ab sufiyanke la woon. donte nag am na benn méthode bu mu daan jëfandikoo di critiquer tasawuf ñeent tasawuf yi nga xam ni jàpp nañu ni dañoo bàyyi tasawuf euh, dugal ci lu ci bokkul. da leen daan critiquer lu bari. boo xoolee moom Ibnu Taymiya sëñ bi. am téeréem bii min haju sunan nabawiyya fi naqdi mm-hmm. kalaami chia wal qadariyya chia mm-hmm. yi lay ràdd ci téere bi mm-hmm. lay contredire téere bi ñeenti volume la waaye dafa mel ben benn rek lañ ci fekk eh, kon lépp mu ngi ci nga xam ni a chia yi lay ibnu taymiya di tontu sëñ bi kon Euh, amaana jaare ci téere bi xamoon na lu bari ci tasayo xamoon na lu bari ci siit yi waaw kon loolu it day wane yaatu xam-xamam waaye li ci leneen li muy gën a wane mooy esprit bu ubbeeku bi mu amoon bay mën a yëral ñu mel nii nga xam ne mag ñooñu amoon mm-hmm. yenn saay dañ daan am taxawaay bu négatif ci moom mm-hmm. waaye teewul rek moom mu bëgg a xam lan moo nekk ci mbindam mm-hmm. moom Ibnu Taymiya moo bind téere bii moo bind téere bii 37 volumes la ñaari euh, exemplaire moo nekk fii waaye benn bu ci nekk manqué na. Mhm. ñaara fi nekk benn bu ci nekk manqué na. Euh, téere bi masalan lu deme ni bii mhm. lépp ci ilmu suluk lay wax. Mhm. tasawuf suuf. ku xool téere bii boo ci sukkandikoo da nga naan ab suuf suuf yanke la cent pour cent. donte nag mu ngi critiqué yenn suuf yanke yi nga xam ne dañu boole woon ci tasawuf lu ci bokkul. moom téere bi moo ko boo demee ci volume volume onze bi. nu mu ko tuddee ak tasawuf bee ilmu suluk bee ilmu tasawuf ab xaadir la woon ndax baayam di abdul halim baayu kooku di abdul salaam sëriñu baayam di ibnu xudaama abdul qadir jeylaani moo ko yar moo ko yar moo ko jàngal moo ko takkal laxasaay kon euh, sëñ bi kon lii yëpp day wane esprit bu ubbeeku bi mu amoon boo ñëwee fii ba tey di nga fi fekk téere fiqhu zakat buñ la nee sëñ bi amoon na fiqhu zakat ban téere mooy fiqhu zakat téere bi gën a jotale ci lañu bind ci asaka kan moo ko bind ki ko bind 2022 bii la faatu te sëñ bi amoon na ko Yusuf al-Qaradawi yi ni ngay dégg mhm. moo bind téere bi mhm. donte nag Yusuf al gudd na fan ndax téeméeri atam ci la faatu mhm. gudd na fan waaye moo bind téere bii waaye siñ bi amoon na ko. te mu doon ko xam ni. moo ko mag fuuf waaye nag. am na téereem. kon loolu it day day wane yitteem. boo demee ci eh, wàllu siiratu yonent bi li nurul yaqin la. doon téere boo xam ni jamono ji lu bari ci wàllu dundu yonent moom la ñuy jàngale. Eh, Mouhamadul Xudar yi bak moo ko bind. minhajul muslim bi ki ko bind it. 2020 eh, la la la faatu normalement wala 2021. Boubacar Jaabir al Jazaahiri ci fiq la waaw te teewul sëñ bi boole woon na ko ci ay téere lépp rek ngir ngir ngir yaatal xam-xamam ak yër la fa la ne feneen rek moo moo moo moo taxoon euh, bu ñu demee ci la Taysirul Allaam bii it ki ko bind ba mu faatoog léegi bu motee ñaar fukki at ci lay toll euh, ci hadis la moom nusratul muttaqin it noonu même bii nga xam ni ki ko bind Euh, Ablaye Diop la tudd alaaji Ablaye Diop mhm. nekkoon imaamu Banjul mhm. moo bind téere bii rawdatul muasirin mhm. mu doon téere boo am solo it fiq waaw waaye it euh, loolu yi ngir wane rek. Mm-hmm. Euh, yitte gi mu joxe woon xam-xam. Mm-hmm. ba fu lu fu fu téere jóge mm-hmm. dana fexe man koo am. ngir mën a mën a jariñu ca la nekk ci biir walla mën a yër la nekk ci biir. kon loolu ci tënk. moo nekkoon maktaba Cheikh Mahamad Chouaib euh, Cheikh Chouaib mu Cheikh al Khadim. ci li nga xam ni fekk nañu ko fi. te mu mu wóor ñu ni la la la lañu fi fekkut moo ëpp. waaw la ñu fi fekkut moo ëpp ndax firnde la ci rek ni li ëpp ci téere yi. seen yenn volume yi nekk ko waaw kon ci gàttal lii mooy maktaba bu Cheikh Chouaib euh, ibnu Cheikh al Khadim mhm. bi nga xam ne moom moo ko mooma doon bopp dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf kon mu mel ne euh, téere yi nga xamante nii présenté yi nga ñu ko te ñu dagale leen lenn ci téere yi nga xamante ni Serigne yi su boppam moo ko dagale woon yoroon ko euh, mu mel ne bu ñu gisee maanaam lii nga xamante ni moo moo moo moo wuti gi nga xamante am na ko ci wàllu thématique kon day firndeel rek li ñu wax léegi ci dayo bi nga xamante ni yi bu joxoon na ko xam-xam joxoon na ko téere kon xam naa rek dañuy euh, euh, wéy si visite euh, guidée bi mm-hmm. ñu fas yéene dem ci beneen réew waaw ba tey ñu ngi ci maktaba bi nga xam ne mooy maktabatu Cheikh Souhaïb ibnu Cheikh Al Khadim comme ni ñu leen ko waxee woon rek mag ñi yitte gi nga xam ne dañ ko joxoon xam-xam Euh, yàlla def defit euh, yitte jooju ñu ko joxoon donn ko ci seeni maamaat donn ko ci assalaf euh, ba tey yàlla am na ay góor yàlla yoo xam ni fa seeni bàyyi tegoon seeni tànk fa seeni maam tegoon seeni tànk fa la ñu teg seen tànk ba tey loolu bokk na ci li waral maktaba bii di maktabatu cheikh Chouaib ibnu cheikh al Khadim ndax njabootam ci njiitalug euh, sëñ Seex alxadim moom sëñ Shuayb di taawam di xalifaam euh, yitte ji nga xam ne way juróom da ko amoon euh, ci xam-xam am ko it ci fàggu jumtuwaay xam-xam maamam amoon yitte ju mel noonu moom it yàlla yënkiwul ko yitte ju toll noonu ba tax mu amal maktaba bu toll nii mbooleem jumtuwaay yi ci war a nekk ci ay étagère mu fàggu ko ku gis étagère yi xam ni euh, lu baree baree bare moo ci dem ci alal euh, ginnaaw gi étagère it moom kese bu taxawee du am njëriñ il faut ñu remplir ko ci ay téere jéego yi njëkk yi nag ci remplir maktaba bi moom lañu ñu toll phase bu njëkk bi ndax ay phase la yoo xam ne bu soobee suñu borom euh, ku fi ñëw ren boo toogee ay weer dellusiwaat fi da nga xam ni ñaareelu jéego bu ñëwee ba ñetteel lépp dina remplir amaana sax dinañu yegg ci état bu dolli yeneen i étagère ngir maktaba bi rek waruta manqué dara loo xam ni lislaam da koy soxla ndonga daara da koy soxla xam-xam da koy soxla kon fii mooy li aju ci xam-xamu tafsir tafsir nag bu ñu ko waxee mooy ndey xam-xam yi ndax dafa aju ci alquranul karim téere tafsir yi ñoo nekk nii euh, mu doon téere yu bari lool mmh, mmh, mmh. Euh, ñaar rek lañ ci lañ ci cité Euh, benn bi mooy euh, tafsir bi mag ci tafsir yi ci àdduna mm-hmm. nga xam ni benn jiituwu ko amut benn tafsir boo mën a teg baaraam ne tafsir bii mooy moo moo moo moo jiitu tafsir bii muy tafsiru tabari jaamiul bayaan fii taawili ayil quran mm-hmm. tabari moo ko bind 310 la faatu ci gàddaay yonent bi mm-hmm. cent 310 boo bàyyee xel ni ñu ngi ci 1444 ren moom 310 la faatu tafsir bi gën a rëy ci tafsir yi mhm. mën nañu ne it gën a mag ci tafsir yi mhm. moom am na fi mooy ndey ci tafsir yi moo tax nag ña doon tartib maktaba bi ñu jiital ko moom ndax nag moo jiitu ci tafsir yi mhm. waaw kon euh, lépp a ngi fi tafsir boo xam ne tafsir yu jiitu ya tafsir yi nekk ci yaleen topp ba yegsi ci tafsir yi xew ci yi ñu génn ci jamono ji yi ñu lëkkaleeg jamono kon la sëñ bi sosoon ba tey loola mooy li fi nekk ngir yaatal kon yooyu mooy téere tafsir yi eh, ulumul quran mu ngi fi bu ñu la nee ulumul quran mooy liy expliquer tafsir mm-hmm. tafsir tëbul tëb rek tafsir dafa am ay charte am ay condition mm-hmm. am ay règle mm-hmm. règle yooyu li koy expliquer ba mu fassir bi mën a jóg tafsir al quran xam-xam yi aju philosophie bi aju ci tafsir moom it téere yii ci suuf yëpp ci lay aju yëpp ci ci ulumul quran ak usulu tafsir lay aju waaw itqaan fi ulumi alquran alburhan altafsir walmufassirun manahilul irfan yëpp ñu ngi fi loolu kon moo aju ci tafsir buñ nee tafsir la ca topp mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis yonent bi nag gis nañ ni sëñ Chouaïbou la mu ci fàgg woon kon na nañu jàpp ni la ñu gisoon fee ci tafsir ñooy jiwu tafsir yii la ñu fekk fee ci xadis mooy jiw téere xadis yi yii nag téere xadis yi ñaan ummahaat yi yëpp a ngi fi bu dee mu watta comme ni ñu waxee léegi ci tafsir bi mag waaye Muwatta moom mooy téere bi mag ci àdduna gannaaw alquran mu ngi fi fekk nañu fële sarxam ñaari sarxam yu bokkul sarxul sarqaani ak sarxul muntaqa eh, kon Muwatta mi ngi fi ay saraay mu Muwatta mu ngi ñu ngi fi buxaari yi ak i saraam ndax fii am na ñetti saraay buxaari yu bokkul eh, sarxu sayl buxaari bu ibnu battaala ngi fi fathul baari bu xaafis ibnu xajar mu ngi fi awnul waaw umdatul qaari bu badruddin al ayni yi mu ngi fi ñeent sax ak kawsarul maani darraar yi bu ibnu mayaaba mu ngi fi kon ay xeeti ta xeeti saraay buxaar yi lu toll ci ñeent am na ci maktaba bi bu dee muslim it sharha ma ngi fi mooy ñetteelu téere wala ñaareelu téere bu dee ci kutubu sitta ngay wax juróom-benn téere yi moom mooy ñaareel saraam bu nawee mu ngi fi bu dee ba ca topp mooy abu daawud ñaari saraam yu bokkul ñu ngi fi awnul maabud bu Chamsul Haq. Mhm. al azim abadi mu ngi fi. Eh, Sharh Sunan Abi Daawud bu Badruddin al Ayni mu ngi fi ki def téere bële di Umdatul Qaari. Mhm. ca Buxaari. Mhm. moo saraat téere bii ci Abu Daawud. waaw eh, boo ñëwee ci Sunan Tirmisi it mu ngi fi eh, ak saraam bu gàtt bu Ahmad Shakir da nga fi fekk Sunan Nasaayi. boo ànd ak sharhu suyuti mhm. da nga fi fekk sunan ibnu maaja da nga fi fekk sharhu na bu baxawi ak mhm. yeneen yeneen yeneen téere xadis ndax xadis ay fan fanna yu bari la mhm. toll na ci ëpp na juróom-ñaari fan na bu ci nekk am na lu fi ne téere yi rijaal it ñu ngi fi ndax yooyu ñooy en ko accompagner téere xadis yi nga xam ne rijaal yi ñëw ci xadis yi ña ca wér ak ña ca wérut nan lañ leen di xamee téere yay saytu loolu it mu ngi fi ndax bi benn la ci jëmmal loolu muy misaanul i'tidaal fi naqdi rijaal bu alxaafis zahabi kon lii moo tënk téere yi ñëw ci waaw rayon bi kon téere tafsir yi ak ulumul quran ak téere xadis ak ulumul xadis ñoo nekk ci rayon bi mais fiq nag daanaka mooy Euh, la njëkk a juddoo ci diggante alquran ak sunna ndax cosaanu fiq alquran la ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fiq ci la jógee téere ba jiitu ci fiq it nag ci mazhabu Malik ak ci mazahib yépp mën nañu ne mooy almudawanatul kubra bi nga xam ni téere bii ay waxi Malik rek a ci nekk leneen nekku ci daanaka mooy mudawana mooy ndeyu mazhabu Malik bépp téere bu ñu taalifati ci mazhabu Malik ci téere bii la jógee amul exception sans exception. bépp téere ci mazhab Maalik téere bi mooy ndeyam. kii tabsira bu laxami la. moom it ci ñeenti téere yi xalil sukkandiku. ca ba muy taalif muxtasaram ba mu lay wax bi lixtiyaar yi li laxami. fu ma ne lixtiyaar rek. laxami laa ci jublu. laxami téere ma nekk nii. waaw euh, risaala ñu ngi fi bari nañu fi. charaay xalil. Euh, ñu ngi fi charaay ibnu Achir. ñu ngi fi charaay charh euh, saxir charaay euh, aqrabul masalik bu dir dir mu ngi fi ay xaasiyaam mu ngi fi même téere yi nga xam ne dañ ko bind te mu doon téere yi ñu bind ci jamono jii ngir yaatal fiq ak leeral ko seeni téere comme alfiqul maliki wax di latuhu fiqu sunna yooyu yëpp téere la yoo xam ni dañ ko bind ci jamono jii ngir gën a leeral mazhab imam malik kon lool it mu ngi fi yii kon fii dinañ fi fekk ay chara xalil ay chara yi Euh, risaala yu bari waaye fii it la ci ëpp mën nañ ne lépp sax dale ko ci kaw ba ci suuf lépp xalil la ay saraay xalil yu bokkul yoo xam ni war na mat euh, juróom wala juróom benn saraay yu bokkul lépp di aju ci xalit kon rayon bi lépp fiq la moom tamit waaye la ci ëpp ci xalil lay aju euh, bu ñëwee fii it téere yi yeneen mazahib yi la yu bokkul ak mazhab Malik ndax mazahib comme ni ngeen ko xamee bari na Euh, mazhab Shafia ngi fi. Mhm. mazhab Abu Hanifa mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Mhm. comme ni leen ni ko ni ko sëñ bi di tudde euh, ay mati fil fiqhi malikul ali wa Shafii wal Hanafi wal Hanbali man la ko sëñ Tuubaa waxee moo tax it euh, fii am na fi. Mhm. lii mazhab Shafii la li tax ñu taamu ko it. mooy ni mooy masab bi gën a jege masab Malick ci mazahib yi ndax Malick a ko yar Malick a jàngal moom ci boppam bu ñu koy compter moom ci boppam ab Malick kii la mhm. ba pare nag ut masabu boppam ci suufu masabu Malick lii mooy téere bi ëpp solo ci seen mazhab mhm. muy téere Nawawi tudd al majmu sharhul muhazzab imam Nawawi moo ko bind lii euh, tamit ci fiq la waaye fiq bu du dajale ñeenti mazahib yëpp mhm. al fiqu al mazahib al arba ñeenti yëpp a ci nekk loo soxla fi mu toll ni ci mazhab Malik mën nga ko xoole ci teere bi ci mazhab Shafii ci mazhab Abu Hanifa ci mazhab Ahmad ibn Hanbal ñaar yi it ci téere la nga xam ne bii imaam Ghazali mi bind Ihya Ulumuddin comme moom ab Shafii la woon moo bind téere bi it di alwajiz waaw ni muxtasar xalil mel ci sunu mazhab ma téere bi it noonu la mel ci mazhabu Shafii léegi fiq dafa am cosaanam am cislaay ndax biir fiq ay fànn yu bari la waaye la ci ëpp solo mooy usulul fiq xam ni mooy ndey yoon anam ya xam ni moom la borom xam-xam yi bi ñu jële xadis jël alquran yoon wa ñu jaar ba mën caa seppee fiq yoon woowu usulul fiq moo koy jàng yii nag tey téere usulul fiq la ak ay téere maqasidu sharia ak ay téere alqawaidul fiqhiya kon yooyu yëpp it am na fii ci ci ci maktabatu cheikh Shuayb ibnu cheikh al Xadim bu ñu ñëwee fii dinañ fi fekk téere yi tasawuf yi tasawuf sànq maa ngi junj ci téere itxaafu assaadatil muttaqin nga xam ni ba ma ko fi fekkee keroog dafa ma daf ma xaw a bett ndax jàppoon naa ni euh, téere bu raar la amaana yegg siwul woon fii waaye ñu fekk ko ci téere yi ay Shuayb ba tax ba ñuy fàggu téere yii euh, dañ caa dañ caa boole woon itxaafu saadatil muttaqin te même ndekete mu ngi fi woon téere baa nekk ni di charhu ihya ulumi diin xilyatul awliya bu abu nuaym nga xam ne nitu yàlla yi wilaaya ahlul wilaaya wali yi seen i melokaan seen i jikko seen nañu meloon téere bi moom lay jàngale safatu safo bi moom lay jàngale ihya ulumi din bu Ghazali yi nga xam ni wa haythuma dhakartu qaala bi damir fa rajiun ila al Ghazali shahir bi Sëñ Tuubaa wax ci masaalik téere bii lay junj waaw téere bii lay junj kon yii yëpp ay téere yi tasawuf la euh, ci madaaris yi tasawuf yëpp lu dut madrasa boo xam ne amaana dafay xaw a laal ci philosophie ndax comme dañoo jàppale sëñ bi euh, daanaka tasawuf googu daanaka joxul joxu ko woon itte tasawuf bu tënku ci alquran ak sunna sëñ bi moom la doon incarné moo tax xeeti tasawuf yooyu da nga fa fekk lu bari incha allah fii nag lu aju ci siira ak taarix ci biir siira da nga ci fekk kutubu siira nga xam ni jaar-jaari yonent bi ba mu juddoo ba ni mu wigee borom nga cay fekk waaye di nga fi fekk it téere yoo xam ne dafay aju ci chama ilu yonent bi jikkoom yi ay melokaanam ay ngëneelam daanaka téere bii dafa bokk mooy téere bi gën a rëy ci bii wax jaar jikko yu yonent bi moo ko soxal ay jaglu ay jaglewaayam ay melokaanam nga xam ni Cheikh Ahmad Bamba daanaka ca la mu bind ci yonent bi wàllu woowa la gën a la gën a la gën a joyal mbindam ndax bindut lu bari ci wàllu xawliyaat mooy juddoom di nettali ay jaar-jaaram sëñ bi bindu ci waaye ca la mu gën a bind mooy la tax mu ràññeeku la tax yenent bi gën nit la tax yenent bi mel nu kenn melut la tax mu yegg fu kenn feggu yeggut ndax la may wax toujours rek la mu ci jublu mooy ñu xam ni kii na mu mel kenn melu ko kon war nañ ko teg fu mu tegul kenn loolu la jublu moo tax mbindam ci wàllu yi la gën a aju achamaila ak ay xasa ak aki aki aki dala ilum nubuwa xeeti téere yooyu ak lu aju ci dund saxaaba yi ñoo nekk ni comme ak tabaqaatul kubra bi bu ibnu saad waaw muy fukki xët ak ñaar mhm. zarqaan yi moo ko bind mhm. zarqaan yi bi bind téere bële mhm. bi ñu wanee woon ci sarxu muwatta moom jëmm jooju moo bindaat téere bi euh, lii it euh, ci wàllu ilmu rijaal la ci wàllu taarix siyar alamin nubala ña nga xam ni kii ko bind di chamsu diine zahabi mooy ki bind misaanul itidaal ba la ñu wane woon ci ilmu rijaal waaye la mu jublu ca téere bee ak la mu jublu ci bii du benn mhm. bii la mu ci jublu mooy ñi fi jaar te ràññeeku ci seen jamono mhm. yaa xam ay boroom xam-xam lañu mhm. wala ay buur lañu wala ay waliyu lañu wala ay saxaaba lañu ñooñu la taarixal seen dund fii mu yegg ci 18 volume euh, moom Samsudin Zahabi moom it ku yàgg la ndax 748 euh, la génn àdduna ci gàddaa yonent bi 740 presque mi ngi bëgg ma juróom-ñaar téeméer euh, kii ab taalibeem la moo bind bii. Mm-hmm. waaye daf ci def taarixu àdduna bi la ci la ci taarixal. al bidaaya wa nihaaya tàmbalik adduna bi ba ci njeexitalu àdduna bi. moom la ibnu Kathir nen mi mm-hmm. bind ab tafsiram nga fële ci tafsir yi. bat ul xalqi la tàmbalee ah yàlla di bind dara. Mm-hmm. foofa la tàmbalee moom. lan la njëkk bind ba xam aras la njëkk bind wala xalima ga la njëkk bind yooye lay jaar ak jaar-jaaree àdduna bi ñi fi njëkkoon a nekk ak ñëw ba ci ni mu bind aadamaat ba yonent yi fi jaar ba yegg ci yonent bi ba ci jaar-jaar ba yegg si ci lu ci jamono moom te moom mi ngi faatu 760 774 la faatu ci gàddaay gi moom kii sëriñam la moom ibnu kasir euh, kii tabaqaatul malikiya nga xam ni boroom xam-xam yi la la taarixal waaye boroom xam-xam yi nga xam ni dañoo nekkoon ci mazhab Maalik kese mhm. keneen ñu téelu ko ci moom Qaadi Iyaad mhm. waaw moom Qaadi Iyaad gisoon nañ fa ab téeréem mhm. Mataali'ul Anwaar ci téere sëñ Shuaybu nga xam ni daf ko dafa dafa dafa dafa dafa jël dictionnaire def ko ci Buxaari yoog Muslim ak Muwatta moom moo bindaat téere bii kii moom tarjama bindu imaam Maalik kese la yii taarix la it waaye taarixul arab qabla lislaam mhm. tabaqaat ibnu saad romboon nañ ko léegi mhm. kon lii ci tënk mooy li nekk ci ci rayon bi bu fekkee ni rayon bi la li fi ne day aju ci xadisul ahkaam ndax waxoon nañ la ni xadis dafa am ay pàcc yu bari am na ci euh, xam-xami xadis loo xam ni xadis yi aju ci masalay fiq yi kesee ko soxal mhm. rayon bii nag yooya yooya moo fi nekk daanaka euh, téere bu ñu tuddoon sànq ci ni sëñ bi amoon na ko Mataalixul Anwaar euh, moo nekkaat nii moo nekkaat nii euh, bu weesoo loolu ahadisul ahkaam yépp ci lay aju boo ñëwee fii it ci wàllu ahadisul ahkaam a ngi ci waaye ulumul hadis mustalahul hadis yooyu it seen téere ñu ngi fi naka noonu boo ñëwee fii di nga fi fekk lenn ci xeeti tafsir waaye fii tafsir yana fi ne mooy tafsir ayatil ni mu amee ahadisul ahkam kese hadis yi nga xam ni fiq rek a ko soxal naka noonu la amee aaya yoo xam ni fiq rek a ko soxal aaya yi fiq rek soxal yooyu moo nekk ci rayon bi daanaka ak lu jëme ni wàllu xiraa ak xeet yu mel noonu bu dee yii it yenn téere yi tasawuf yi la ak yi wax ci jikko moo nekk fii yi wax ci jikko ak lenn ci tasawuf ñoo nekk ci rayon bi waaw loolu daal ci gàttal. Mhm. mooy rayon bi rayon bi. Mhm. Mhm. bu dee fii euh, ay téere fiq ñoo fi ne. waaye li fi ëpp téere fiq yu aju ci am na téere fiq yu aju ci yeneen i madhab ndax bu dee bii ci mazhab shafii la bu dee bii ci mazhab hanbali la waaye yi ci diggante bi euh, bii tënkuwul ci mazhab mazahib yëpp lay indi waaye yi ci des ay téere mazhab malik la kon fiit na fële amee téere mazhab Malik li ko mottali fii tamit noonu la demee mhm. bu dee diggante bii mooy xam-xam yi nga xam ne dafay aju li ci ëpp mhm. dafay aju ci ay études yu yees ci jamono mhm. ci misaal benn rek lañ ciy joxe misaal mooy téere bii nga xam ni la ko soxal mooy euh, euh, doxalinu France ci seeni loi yëpp naka la ñu taataane ci mazhabu Malik te la ñuy tëral ci seeni loi foofa ndax boo xoolee jaxasoo woon nañu ci jamonoy Andalus Euh, ñu jëlee ci lislaam lu bëree bëri ba seeni loi moom jàpp na ni soixante-dix pour cent ci tëgginu doxinu réewum France mhm. ci mazhab Malik lañ ko lañ ko taataane ndax jaxasoo gin jaxasoo woon ci jamono yooyu mhm. donte dañ koy tëggaat yeneen tëggin mhm. waaye cosaan la mazhab Malik la ñeenti volume yi loolu lay loolu lay jàngal li ci des nag ci wàllu atte wàllu qada Mhm. wàllu àtte ci charia mhm. wàllu siyaasa charia mooy politique nan la ñuy réew mhm. xeet yu mel noonu yooyu yëpp ñu ngi ci ci rayon bi boo ñëwee fii tamit da nga fi fekk comme na nga fekk woon fële téere yi ëpp nag ci aju ci usulul fiq moom it di ko fekk ci rayon bi waaw di ko fekk ci bi usulul fiq maqasidu sharia ak yu aju ci xam-xam yooyu bu dee fii dinañ fi fekk téere yi luxa luxa nag buñ ko waxee imaam suyuti moom nee na luxa ñaar fukki fan na la ak ñaari luxa yu bokk waaye fànn yooyu dinañ fi fekk lu mel ni mat mu luxa xam ni jëmmi luxa la ci boppam euh, dinañ fi fekk lu mel ni euh, nu mu tuddati wàllu dictionnaire yi comme fii yëpp ay maajim la am na ci sax français arabe arabe français di nga fi fekk grammaire waaye di nga fi fekk rhétorique muy muy muy muy muy balaaxa ci ñetti xam-xamam yëpp ilmul maani ak bayaan ak badiya waaye di nga fi fekk it eh, lu mel ni téere bi laay junj léegi nga xam ni moom la suyuti ci téere bi la bind xam ni ni fiq amee usul hadis amee ko usul tafsir amee ko usul moom mu créé usulul luxa luxal arabiya yëpp lan mooy cosaanam téere bi looloo ko tax a jóg fii lay waxee di ne luxal arabiya fukki xam-xam la ak ñaar xam-xam bu nekk na mu na mu sosoo ak la koy jàngale lépp da koo dénk da ko tënk ci téere bi moom imaam Jalaaluddin Suyuti képp koo xam tamit bëgg nga jubbanti sa làkk làkku làkku araab surtout ñi nekk ci daara ji moom ñu ngi leen di conseillé lu mel ni téere yii yii yu mel ni ak yii. dëgg-dëgg ku ci concentré wu. di nga mën a bind lu baax waaye di mën a wax lu rafetit ci luxal arabiya kon yii la ci ëpp téere lépp daal téere yi luxa la. ci fan nay luxa yu baree baree baree ngi fi bu fekkee ni diggante bi nag moom culture générale la. waaw culture générale moo fi nekk buñ ciy joxe misaal muqaddimatu ibnu Khaldun. ci sociologie lay wax moom. est-ce que. muqaddimatu ibnu Khaldun. am na ñu jàpp sax ni moom moo ko créé. xam-xamu mhm. xam-xamu sociologie mhm. hmm? boo demee ci euh, lu mel ni ak tarbiyel fikri wàllu éducation mhm. eh, ci wàllu éducation ci spirituellement euh, lu mel ni psychologie téere bii ci lay wax hmm? euh, ci lay wax lu mel ni wàllu politique ci wàllu politique politique gu ci àddina bi nan lañ ko wax a saytoo bii tamit ci lay wax di fi fekk lu mel ni Euh, jamono yi xew ci jamono yi nga xam ne moom la tubaab yi di créer la ca ëpp nan la nan la ko alquran junje woon ca ba alquran di wàcc téere bi moom it lu mel noonu rek lay jàngale waaw moom rek lay jàngale xeeti téere yu yu yu bare bare moo nekk nii lii moom ci ilmu nujum lay wax wàllu wàllu wàllu astronomie. Mm-hmm. ci lay wax moom daal fii ab jaxasit la boo xam ni. Mm-hmm. la ci ëpp daal xam-xamu mm-hmm. xam àdduna ak lépp a ngi ci biir. waaw kon euh, loolu mooy téere yooyu. Euh, yii it lenn la ci téere yi luxa yi ak téere yi nga xam ne téere yi école la euh, yii nag téere yi ñu bind ci Serigne Touba ak moom ci boppam yi mu bind yu du xasida yi waaw ci misaal yëpp minal baax xadim bu sëñ Bachir oo ngi fi as-siraajul munir fii sirati xadimil Bachir al xadimil Bachir bu sëñ Cheikh xadim mu sëñ Muntaxa moom mi ngi fi دراسات حول المريدية بروض الرياحين المغني في معاني فيض الغني المغني nga xam ni sëñ Seexuna mu sëñ Murtala mu sëñ Fàllu moo ko bind di sara faydul xaniil muxni bu bu maamam yëpp fatwa yi Sëriñ Tuuba xikamu Cheikh Ahmad Bamba ir waaw naa di mu sëñ Mur Lamin Jóob Dagana ak tarbi al muridiya al xaqiqa wal waaqi bu sëñ Mouhamadul Murtala Mbàkke Cheikh Faati Fall bu Daarul Moxti daanaka yi ay téere la yoo xam ni ak euh, diwaanu Cheikh Ibrahima Diop Masar. Mm-hmm. an nafahatul miskiya. Euh, bu bu bu bi ma doon tudd sànq. Mm-hmm. Euh, bu alalawi yëpp daal téere xam-xam yi nga xam ni day jàngale yoon wi. Mm-hmm. yooyu ci fii nga koy fekk. waaw bu ñu ñëwee nag fii nag fa la xasida yi nekk fële la téere alquran yi nekk. fii moom téere xasida yi la comme ni ko ñëpp xame ko gis xam ni mbi bindi sëñ bi la. la ca ëpp surtout rayon bii. lépp bindi sëñ bi la. waaye fii nag la ca kaw. Euh, comme xuratul ayn bu mi nga xam ni mooy borom maktaba bi moom moom moo bindoon lii ni mu bindee buxyatul muridin wa xunyatul mustarfidin ci arab euh, yii it ay téere sëñ Tuuba la euh, yii diwaan karaamati xattu yadi nga xam ne sëñ Muntaxa moo ko recommandé woon. ba moom it commencé na yaatu xasida yi rek la. moom la ñu bindoon euh, bind moo xam ne dañ koy bind mbindum arabal. ba gani arab yi ñëw ñi bëgg xam yoon wi te mënuñoo jàng suñu mbind yi. ñoom bu ñëwee boo leen joxee yi dana leen mën a njëriñ danañ ci mën a xamee sëñ bi bu baax a baax a baax. waaw yii nag moom téere yi alquran yi la comme ni ngeen ko gisee. Euh, mu doon ay masaaxif yu bari. Mm-hmm. waaye masaaxif yoo xam ni dinañ fi fekk. Euh, masaaxif warsh warsh mooy euh, riwaaya bi nga xam ne moo gën a siiw mm-hmm. ay jamono fii ci réew mi mag ñi ci riwaayay warsh lañ daan jànge alquran te lañ ko daan wattoo li ëpp nag ci rayon bi daanaka lépp rek warsh la mm-hmm. am na ci masaaxif yoo xam ne masaaxif waa dëkk bi la mm-hmm. fii lañ ko bindee yooyu it bari na fi ku xam Touba xam na mu ràññee ko. Mhm. ci bind kaamil. Mhm. waaw ci bind kaamil ba kaamil yi ñu fi bind. Mhm. alal lu mu néew néew ëpp na junniy kaamil. nga xam ne fii ci dëkk bi lañ ko bind. loola moom jarut ñu ci ñu ciy xóotal. ndax Touba dafa ràññeeku ci loolu. ràññeeku goo xam ne du ràññeeku ci biir réew mi waaye ci àdduna bi yëpp Touba rek la ñu xamee loolu. ci àdduna bi yëpp war ngel képp. waaw kon lii ay masaahir la am na masaahir it yoo xam ni xafs la nga xam ni boo demee lu bari ca naar ya euh, surtout Arabie Saoudite moom lañuy ñuy jànge yëpp di delluwaat ci mennu al mennu alxuraan bii rek ndax euh, alxuraan dafa am ay euh, xiraat yu bari xiraa yooyu ku ca ne daanaka am na ñaari raawi ñu solo ci yow kon xafs la xafs moo daan solo ci aasim ni ki wars daan solo ci naafia kon yii ay téere alxuraan la kon ci gàttal euh, li tax ñu tëje ci alquran ndax mhm. tëj doon doon misk xitaamuhu mhm. misk mhm. doon ñu gëttal tëjin gi euh, mooy alquran fa la ñuy tàmbalee fa la ñuy yem waaw ci alquran la ñuy tàmbalee lépp waaye ci alquran la ñuy yemale it lépp kon balaa ñuy tëj du ñu def lu dul euh, sant waa xisbu tarqiya daarul xuddoos ak gërëm leen ndax lii ñoom la ndax sëñ bi ñoom la sasoon liggéey bi ñu taxaw ci taxawaay woo xam ne taxawaay wu mucc ayib la taxawaayu mucc ayib. phase bu njëkk bi. ñoom ñoo ko jëmmal nii. te incha allah ñaareelu phase baa ngi ñëw. te yàggatul bu soobee suñu borom. kon sant leen gërëm leen. ñaanal leen yàlla ndax nag euh, dañoo wootee jëm ci njub wa man daa ila xayrin fa lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yawmi alqiyaama euh, koo xam ni wootee nga jëm ci njub participer nga ci njub jëmmal nga ak njub lu baax. fii ku fi ku fi yër dara. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, eh, day tàmbalee ca yonent ba sallallahu mm-hmm. lépp lu ñu fi jariñoo yonent bi da cay am. waaye Serigne Touba mii borom dëkk bi da cay am. Eh, suñ Chouaib mii borom kër gi da cay am. suñ Cheikh Sey mi ko jëmmal da cay am lees luñ fi mën a jànge waaye waa xisbu tarqiya it. bu Daaru Quddoos ñoom it dañu cay am ndax ñoom ñoo. ci seen loxo la lii jëm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon ñu ñaanal yàlla ñëpp suñ seex sa yàgg fi lool. ba lii mu sumb lépp mën a. mën a ñore xomm ci kanamam. bi juudillaahi wa bi karamihi wa bi manni. Mm-hmm. wa bi barakati cheikh al xadim. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, jërëjëf docteur Serigne Abdou Lahad mu mel ni kon euh, mbokk taalibe yi euh, bibliothèque bàngo mu mel ni visite guidée bii nga xamante ni ànd nañ ko Serigne Abdou Lahad Sané di ko sant bu baax a baax a baax ndax ni ma ko leerale liggéey bii euh, ba si sëñ bi joxe ndigal Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ngir ñu war a saytu li si war a jëm ci ay téere moom mii lañ ko àndal ak moom ñim ci àndal di njabootu sëriñ bi kon mel na kon xeetu xam-xam téere yi ngi si gis yëpp ci ak euh, ay orientation lañu lañu lañu lañu ko defee euh, kon mel na tamit ni ñu ko gisee mbokk yi nga xamante ni dañoo di di sàkk xam-xam ñiy def ay études si université yeeg ak fu mu doon kon mel ne am na diversité thématique yu am solo yoo xamante nii ku fi ñëw di nga ko fekk moo xam li jëm ci wàllu tafsir ak li ci aju li jëm ci wàllu hadis ak li si aju li jëm ci wàllu fiq ak li si aju li jëm ci wàllu sira ak li si aju li jëm ci wàllu luqa ak si aju ba si li nga xam ne dafa jëm ci taarixu yonent yi ak gaa yu baax yi nga xamante ñi ci woon waaye sax ba si li nga xam ne dafa jëm ci wàllu culture général ndax am na rayon boo xamante ni wàllu culture générale moo ci nekk wàllu si sociologie mi ngi ci wàllu astronomie mi ngi ci wàllu politique mi nga xam ne nii ñu yoree réew mi ngi ci ba ci wàllu li nga xam ne mu jëm ci wàllu constitution euh, tënk na ko ci nga xam ne France république française nga xam ne sax loolu am na si loo xam ne si téere yi xam-xam yi ci lañ ko jukkee kon loolu yëpp xeetu xam-xam la yoo xamante ni ku fi ñëw fii si maktab bi di nga ko fekk kon xam naa dañuy delluwaat di sant bu baax a baax si nga Abdoulaye ni nga ko waxee léegi ci taxaw bi ci gunge bi nga xam ne lii yëpp rek ci ci ci njiitam lañ ko defee ak ñi nga xamante ni ñi ngi ci kër gi eh, di eh, njabootu Serigne Cheikh bu Serigne Souhaïbou bu Mbacké nga xam ne moom lañ ànd liggéey bi doon ko saytu doon ko taatatal ba xamante ni li nga xamante ni dëppoo nag barab bi dëkk nag dëppoo nag dëkk bi dëppoo nag ni nga xamante ni moom la Serigne Touba doon saytoo xam-xam lañ dajale indi ko si maktab bii nu mu ko waxee nga xam ne étape la bu njëkk boo xamante ni saa su ne rek ku fi ñëw ci at yi di ñëw ci weer di ñëw boo fi ñëwee di fekkaat leneen lu bees loo xamante ni dafa jëm ci wàllu boobu kon xam naa di leen euh, dox daje euh, ba beneen yoon di leen santaat di leen gërëm di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootu Serigne Touba yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa